L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. صلى الله عليه وآله وسلم ديكو نيانال جام موم اك صحابام اك تابعين له باحسان الى يوم الدين mbokk julli di sunu xutba tey mi ngi jëm ci khatarul kihanati wal kuhan muy danger bi nek ci am njabar ak fetis ab ñakoy jëfëndiko mbokk julli di yi bu ngeen setlo sunu rew di ngeen fekk ni lu bari ci nit ñi tay dañuy démé seeni bëgg-bëgg rek moo tax jamono bi ngeen seetlu rayante bu bari rendi wante waaye sotti wante ay gàllaaj ak liggéeyante xam ngeen ni yàlla subhanahu wa taala daf ñoo bind ngir ñu wéetal ko waaye ñu jaamu ko kon yàlla subhaanahu wa taala li munu sant mooy nanu ko wéetal nanu ko jaamu mu tere ñu nu bokkaale koog lenn moo xam nit la walla jinne moo tax borom bi duñu wax ci alquran ne binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma كن المغزى في خلق الإنسان جبلو وايو بندب دوم آدم بي موي مفخي بدو بوكا ليالا أكين برام بي وخنا نيو كوني نجين ما جامو te bu len ma outal ndend bu len ma bokale te xam ngeen ni bokkaale bunt la bu yaatu waaye bokkaale jëf la joo xam ni day yàq jëfi doomu aadama même yonent yi yàlla yónni ku ci bokkaale sa jëf dana yàqu moo tax borom bi ne walaw ashraku la habita anhum ma يعملون نانا نيوم نيما يوني ني ري لول كوتي بوكال سي ديف ليپ داي ياكو مانام سفر لا جيم من يونت بي صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا يحبطن عملك يا محمد بس بو بوكال سي ديف ليپ دا فاي ياكو كون دا فا بوكو تي جوليت بي ngir sàmm janaaba tawxiid fexe ba li muy jaamu yàlla yàlla gërëm ko nangul ko ko da caa bokk mu segg la muy jëf da caa bokk mu segg la muy doxalee ndax kat nit dafa war a am pas-pas bu wér ci boroomam am yaakaar bu wér ci boroomam bokk na ci loolu yàlla di tere te muy bokkaale ak yi ko nuru mooy dem ci ab njabar moo xam njabarkat lañu koy wax walla sëriñu tariyaax lañu koy wax walla gisaanekat lañu ñu ko wax ñooñu kenn koo jëm ci moom ngir mu xoolal la luy am ëllëg moo xam danga bëgg takk jabar nga ñëw ci góor gi ne ko dama bëgg nga fanaanoo ma mu fanaanoo la xëy nettali la walla mu jël lenn te yu ñuy jëfandikoo di la wax sëy bi dana baax walla du baax futbal bi di woy gañe walla du gañe bëre bi di woy daan walla du daan ñoom ñépp ay arraafuun lañ islaam nee na ku jëm ci ñoom walla nga gëm la wax ñeen fukki fan soo jullee yàlla dala koy pine du ko nangu sa julli te yàlla bu la nangulul julli leneen du la ko nangul nit moom bu ñu la xañee julli sa woor du dem sa azaka du dem sa saraxe du dem sa dox mbokk du dem sa jëf ju baax du dem lan moo tax parce que da nga àgg ci shirk da nga yéeg ci li la yàlla tere woon ndax kii nekk fii di woote woo xam lu ñëwagul da nga koo bëgg a jox place yàlla te qul laa yaalam man fi samawaati wa man fi l ardi illa allah yàlla dalaa waxoon ci alquran informé la ne la amul ku nekk asamaan ku xam luy am ëllëg amul ku nekk suuf ku xam luy xem ëllëg xatta malaaka yi lii xew suba xamuñu ko dañuy laaj rek ñu waxal leen kon nit mënta xam lu ñëwagul jinne naka noonu kon kiy jëfandikoo jinne wala muy jëfandikoo am njabar ak nu mu ko mënti tuddee moo xam na jël alquran sax mu ne ci lay seet ndax léegi nit ñi dañoo mën a naxaate façon naxin boo xam ni dangay ngay dégg ko la naan man ci alquran laay seetee man suuratul kahf laay seetee nga gis ca ñoo xam ni dañuy def li ñuy tuddee ramal jël seeni baaraam di rëdd ci suuf wala ñu jël big di tomb loolu nawun min ashirki billah feeg nit kaa ngi tomb di woo ay ruuxaan moom ngëm yàlla jóge na ci moom mi koy def moom mi woote woo ni sëriñ la moom mi woote woo ni xam na lu am ëllëg te malheureusement suñu réew dem na ba léegi jigéen ñi dañoo dugg ci phénomène boobu dañ cee dugg ci ak ñàkk a xam ak ñàkk a jàng seen diine internet bi dangay gis ay jigéen yuy toog naan nangamay am nangam nangam may nangam rajo FM yi télé yi ut seeni nit ñuy toog boo wootee ñu ne la bis bii nga judd bis bi nangam bis bi nangam sa nangam sa rawaan nangam nangam nangam ñooñu ñëpp borom bi nee na ay seytaane lañ njabootu iblis lañ ay ambassadeuru iblis lañ bu mu sol grand mbubb bu kaalawu ba mu yéem la bu mu peñe sikkim bi laxasu ba yéem la bu mu gàddu kurus tudd tur yàlla ba yéem la jinne lay jëfandikoo te ruuxaan yu bon lay jëfandikoo yoo xam ni képp ku koy jëfandikoo boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ni yaa ngi jëf-jëfi yéefar sa génn ci islaam taxaw na ndax borom bi bu nee amul ca asamaan ku xam luy xew ëllëg amul ca suuf ku xam luy xew ëllëg yow nga bëgg a toog lekk sa ceebu jën bu xonq naan sa zi naan sa attaaya ne suba di way gane fala la fen tàmbalee yem fa fen mi ngi tàmbalee ci mbër mi mooy daan suba président dana wàcc suba diw a koy remplacer diw diway toog diw mooy jël place am diway nangam àgg ci kéefër bay dogu bay dogu ngay dégg koo xam ni daf la naan su nangal amul woowee ma nangam su dara amul woyé ma xaj woyé ma kuti woyé ma mbam fekk xaj ak kuteeg mbaam a ko gën ndax xaj ak kuteeg mbaam wax lu am ëlëk xamuñu ko qul la ya'lam man fi samawat wa man fi l ardi alxayba illa allah mom mi jëf-jëf joju weddina boromam weddina alquran weddina yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bi waxnako dina ci ñëw nee na ku ñëwal njaborkat moo xam yow mi moom site bi taxaw di ko dékk naan ko Serigne Oumar Sall match bi kuy gagné Serigne Oumar Sall naa la maa ngi jàngee Inde dem naa Pakistan dem naa nangam man lu ma wax du deñ ki la ni lu ma wax du deñ moo dàq fen-fenkat yi ñu baal ma ci wax ji parce que wax bu dul dañ amut parce que yoroo dogal yàlla yóbbuwu la lawhul mahfuz nga xam li xew boo doon malaaka mënoo ko kon mënoo doon jinne mën ko astama ba nga nekkee nit waaye di dox ci maayinu nit ñi ngir seefa ngir xaalis bi ngay am ngir oto bu rafet ngir bës ngir tur yaa ngi wax <clears throat> nit ñi di yéemu <clears throat> waaye fomp nga sur ca sa tur ca àddanay borom bi feeg tuubaloo moo tax yonent bi صلى الله عليه وسلم ني ني بولا نيب ما دي لاكو واخال امنا تا كو خامني لا موي سيتي اي خير لا مو خام خيرو جولي كاي امنا ньо خامني جارو لا ني سيتي ام ньо خامني طريق اباجاد بند اباجاد هوزا ولا دادي كوي بندو تي مبندين مو خامنتني خامنا ني ام نجابر لنجي جوبلو امنا ньо خامني دانيي جيل نوخ def ci kaas walla bool jox ko nit muy xool nga gis koo xam ne dala naan man sama bool bi su ma la ko defalee ñii naan su ma bindee ci sa tënk suuratu nàngam lu ma la wax du deñ wallahi ladi laa ilaha gayru kay def loolu borom bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee kookee ñeen fukki fan su jullee du nangu kan nag mooy mooy ñeen fukki fan su jullee du nangu mooy ki ñëw déplacé wu këram ñëw ngir ñu seetal la moo xam jigéen la buy régler sëyam wala góor guy régler société am wala ku am problème ak tribunal wala bu am ku problème ak nàngam ñëw waa ji ne la nàngam nàngam nga gëm ko yow jamono bi nga ko gëmee sa xel wala nga sikki sàkka walla nga am xel ñaar wax na dëgg wala waxu dëgg xam nga foofu lu ñu jàngal dem bi rek xaraam na kon su waxee da ngay fen moo ci war a topp waaye soo bëggee toog moo nga ne ah pourtant lim wax non la de amana mu wax la sa turu yaay mais taxul ma xam ghaib amana mu wax la sa turu bay taxul mu xam ghaib ndax shayatinul jinn ñom ñokoy xabar ne ko diw diway papam diw ko jur ba pare setan te mbokk yi shaytané day fenloo nit te dina ci ñëw léegi mbokk yi koku def lolu nga xamne dafa déplacer wu dem pine nañ la 40 jours boo jullee du nangu waliyaasu billah yal nañu yàlla musal ci weer ak fukki fan nga julli yàlla bañ suba yàlla bañ tisbaar yàlla bañ tàkkusaan yàlla bañ timis yàlla bañ gee yàlla bañ waaw yàlla sa jaam bi lan moo tax mu jàpp njàpp mu rafet liqaam liqaam bu rafet dox gàddu kursam jëm ca jàkka ja mën naa nekk sax imaamu jàkka ja kabar julli ba pare yàlla ne bëgguma waaye yàlla lu tax nga bañ yàlla ne daf ma dendale ak keneen dafa weddi li ma wax gëm keneen wax maa ko njëkk a ne ko qul laa yaalam man fi samawaat wa man fi l xayba illa allah maa ko njëkk wax junniy at ak ñeenti téeméer ak nangam ne ko amul kenn ku xam luy xew suba wa ma tadri nafsun maaza taksibu gada kenn xamul suba looy am moom mii di la waxal suba xamul suba luy am fam benn jigéen dafa jékki rek reetaan ba ci yàgg rek jooy doom ji ne ko waay yaay a yow lu la dal reetaan léegi jooy léegi mu ne waaw parce que damaa demoon ci bàyyi diw mu ne ma suba ci tisbaar soo ñëwee dinaa la wax lu leer ci sa problème bi ak diw avant huit heures du matin mu dee xanaa gisul woon deewam waaw yow mi mën a wax nit ki suba di luy xew xanaa gisoo sa dee walla boog comme xam nga bay xamal nit ñi lu ñëwagul te ñoom ñi leen di wax li amul ñoo leen ëppi problème ndax seen problème ci yéen lañ ko bëgg a régler xaalis bi nga koy jox ci la bëgg jënd oto du xam na lu fàdd du naaw dem ca ndam bi xaalise bëri le ko loolu yore oto yi rafet da ngay gis ku la fanaanoo amul dépense suba léeg-léeg day toog kañ la gaa yi ñëw nga ñëw mu commencé sant yàlla moom bu baax nan suba am naa dépense nga gis ci saay-saay boo xam ne ginaar la lay saraxeloo fekk daa nam mu ganaar nga indi ganaar mu jox soxna si ne ko toggal yàlla ñëw na fekk yàlla ñëwul seytaanee ñëw mbër mi ñëw yëkkati xaalisam jox la ne la defal ma nangam nga ne ko dinaa la defal nangam mu dem nga ne waaye ah, kii de daa dof rek yow yaay dof bu mag bi ndax danga nga jàpp ni dafa dof moom certes dof la mais yaa ko gën a dof ndax yaa ko njalax ci biir ndox mi ndax yaa ko bëgg waxal lu amut mbokk yi ragal leen yàlla jeunesse bi tuub leen ay xale rek ngay gis ci internet bi sëriñ diw yow kay sa affaire bi kooko nangamal mu nangam mu may waaja nangam nangam am ca ñoo xam ni mbokk dañuy jëfandikoo <coughs> ay rawaan ay jinne te xanaa xamoo mbokk yi jinne ku muy informé dof la la jàppee dof la la jàppee dafa am nag benn seetantal bu ndaw bu ci rekk ci biir jinne yi am na jullit am na yéefar yi ci ëpp moom lay wooye shayatin bis boo tàmbalee di jëfandikoo jinne maay borom jinne yi maay borom nangam xam nga lu yàlla njëkk a wax nee na jinne yi danañ la dofloo yow xoolal kuy woo jinne ndax nit la <laughs> eh, tagal dem bul dem te fekk wallaahi day fen wallaahi day fen walladi xalaqa samawati wal ard la muy wax amut borom bi ne huwa yaraakum wa qabiluhu min haysu la tarawnahum seytaane ak njabootam ñu ngi ñuy gis ñun waaye ñun munuñu ñëw leen leen gis nan mën a toogee ci tere naan su ma bëggee nangam mu am toog naa jël toog leen bu leen def nangam def leen taxaw leen fii nangam nangam jamono bi nga ko yow yaay dof bu mag bi yow la di ñi seetaan jàppee la dof nga foog ñu nga say mbokk war nañoo jóg faje la parce que doo nit doo nit beneen bi mooy borom bi ne wa annahu kaana rijalun min al insi bi rijalin min al fa zaaduhum rahaqa yàlla nee na ay nit a ngi ni di dimbalikoo ay jinne jinne musal ngam jinne Muusa جن أيلا جن ديمبا مسلم جن يعوذون برجال من الجن يلا فزادوهم رهقا نجول لن كو جس موي جفن جن بوي وين دفي تامبالي كول تما موي بريمير دف داك يفي دف لاي دف يفي دف لاي وخ ميم فيزا دم بوكو سيرلو يفي دف نتي جس بطي نورمال خلمي دو نورمال زستي دو نورمال كادم دو نورمال دمو كوي علاق dama koy nangam dama ko parce que dof la moo tax yàlla ne fa zaaduhum rahaqa ñu dolli leen ak ak ndof ñaareel bi kuy jëfandikoo jinne fenkat la waxuma ko alquran a ko wax kuy jëfandikoo shayatin fenkat la borom bi ne waylun li kulli affaakin asim fa mu tàmbalee sax yàlla daf ñoo informé نيو هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب يلا نينا كاي لين ما واخ لين يين جوليت ني <coughs> يين ني گم هل انبئكم دو نين نيو ما خبر لين يالا دي موني نيو نيو مخابر نيو هل انبئكم دو نين نيو مخابر لين على من تنزل الشياطين شيطان اي تي نين لا نيو وات با نيك اولياء الشيطان كي مانا توك سوما سانتي جين نانغام مو ديف نانغام سوما لا بوغي الاك دا مالاي الاك سوما يابي ما نانغام لا سوما نانغامي ما نانغام لا واو نانغام fekk ndeysaan gars yi dañ lay invité parce que dof lañ lay jàppee parce que dañuy am dañuy am dañuy am vue ci woo bu ñu la woo parce que yëfi dof ngay def ñoom dof rek benn dof rek lañ la jàppee bul foog ni dañu laa ragal de dañu lay woo di xool say geste say mbokk ñu ngay jooy war laa faji mais yow jàpp nga ni dangaa yore ay jinne te gisoo ko nag loolu mooy dëgg doo dégg buñ ne diw diw dafa amee jinne mooy diw dafa dof gis nga ko borom bi ne kaay ma wax leen ci ñan la seytaane yi di wàcc ñu amé ay ruuxaan di sant seytaane ñu leen defal di leen tere ñu leen di bayil ñu ne yàlla ñan la mu ne tanazzalu ala kulli affaakin asim nee na seytaane ci ki dakk fen lañuy wàcc kon bokko na ci charte pour nga mëna a waxe ci seytaane ñuy ànd ak yow di la defal moy il faut nga nek nekk kat yàlla ñu yàlla musul ci lolu mbokk yàlla ñu yàlla musul ci métier mo xamne fen lay tambalé jéxé fen تنزل على كل أفاك أثيم yàlla nee na seytaana yeeg ruuxaani ci fenkat bi dàq fen ci kaw suuf la ñuy wàcc kon koo gis mu lay waxal lu mel noonu moo dàq fen ci kaw suuf wala ñu mel ni moom tanazzalu ala kulli affaakin asim ñu ne yàlla nan lañ koy xàmmee mu ne yulquuna samaa da ngay dégg ñu naan nii seen nopp waxal ah tax tax tax dégg tey de tey de yulquuna samaa di sànni ay ndeg borom bi neena wa aktharuhum kadibun li ëpp ci ñuy def loolu kat lañ lutax lutax yàlla ne wa aktharuhum waxul ñépp jinne dina am jinne bu baax boo xam ne jinne jullit la mën na léeg-léeg mu informé la dara mais du la wax lu ñëwagul du la ko wax ndax jinne jullit dafa ragal lu mel noonu bu dee jullit la bu xam comme yow ni nga ko ragalee loolu danee am léeg-léeg jinne jullit mën na laa dimbala ci circonstance nga nekk ci yoon jafe-jafe nar a am mu ñëw taxaw taxawaay dimbale la moo tax yàlla ne wa aktharuhum kaadibuun ñi leen di woo li ëpp ci ñoom ay fenkat lañ te pour ñu mën a ànd ak yow liggéeyal la mi ngi mën a ci sa famille amone ay xamb di ko jëfandikoo mu ñëw ci yow parce que dafa bëgg tour la dalay japp japp kenen wala nga rendil ko lu rendi wala nga defal ko lu islam téré mo xam jël dret bindé alquran wala jël sangara sotti ko ci ay bërb wala sax nga jël bakkanu nit nga jël ko lu bari day am mbokk yi képp kuy def lolu yaa ngi jëndee aaya yàlla yi njëg lu néew ndax liñ lay fay bariwul sëriñ bi li nga ci fay ko di ko ci lekk amul benn njëriñ buñ la doon fay un million par séance ngay seetal nit wala ngay waxal nit wala équipe nationale di la fay wala mbër sàngam di la fay borom bi ne wala tashtaru bi ayati llahi thamanan bu leen jëndee aaya yàlla yi njëg yu tuuti CFA mënta jënd aaya yàlla euro munu koo jënd même livre sterling munu ko jënd lan ngay jëlee xaalis bu ñu la fay di def lu yàq sa ngëm yàlla lu yàq sa iman ca jamono boobu boo ci dee wal bi billah safara ngay jëm wal iyaadu billah borom bi ne wala bisa ma charaw bihi anfusahum law ñoo bon lu ñu jëndee seen bakkan seen bakkan ñu ngi ko jëndee dem safara yàlla nañ ci yàlla mosul dara jaru lu ñu la fay nga nekk sëriñu tariyax jaru ko lu ñu la fay nga nekk seetkat jaru ko lu ñu la fay nga nekk xërëmkat jaru ko lu ñu la fay nga nekk rendikat jaru ko tey fan lañu toll di rendi ay xale ci lañ toll jamono yi ñi ngeen dégg ñu rey leen yépp lu ngeen dégg rey na ko yem ci rendi na ko ngay dégg dagg nañu cër ba yóbbu luqi nañu bët ba dagg nañu loxo ba yóbbu parce que lu bon la la rawaan yi bëgg loolu ñu bëgg nag moo xam kiy dem élection wala ki demul élection wala ki bañ ñu gañe ko wala ki bañ ñàngam bis bu demee ba nguur jiitu ci yow bëgg alal jiitu ci yow dootoo gis yi borom bi lu la nar a xañ li nga nekk nga ni danga xeex ak moom donte da ngay perte sa diine wala iyaadu billah laa tashtaru bi ayatillahi samanan qalila bu leen jëndee aaya yàlla ay njëg yu néew yow mi ne sëriñ nga tuubal dellul ginnaaw tuubal dellul ginnaaw borom bi nee na li nga jëndee sama aaya jaru ko de sa ngëm yàlla nga jëndee ko xaalis wala bi sama charaw bihi anfusahum law kaanu yaalamun mbokk yi jigéen ñi moytu leen di dem ci gisaanekat yi moo xam meer la walla màggat la làkkat bu mu mënti doon buleen fa dem ndax xamuñu xayb déedéet xamuñu ko bu leen fa dem su ngeen fa demee mën ngeen a ñàkk seen ngëm yàlla mën ngeen fa jaaree nekk yi ndax ñàkk sa ngëm yàlla mooy nga dem ci njabarkat gisaanekat seetkat mu wax la nga gëm affaire bi am nga ne diw waxoon na ko tey diw waxoon na ko yonent bi nee na faqad kafarta bi ma unzila ala muhammad weddi nga li yàlla wàcce ci muhammad kan mooy muhammad koo xam ne balaa ngaa dugg ci islaam da nga tudd turam boo nee ashhadu an laa ilaha illa allah ñaari yoon koo ciy teg ashhadu anna muhammadan rasulullah kooku boo weddee lu wàcc ci moom yéefar moo fi toog loo gën a nekk yéefar nag di gën a wax ñuy gis loolu la seytaane yi bëgg loo gën a sori sa borom di gën a jege iblis mbokk yi muawiyatu bnul xakam as-sulami laaj na yonent bi ne ko wa inna minna rijalan yaatuuna alkuhaan ci ñuy jamono de am na ñoo xam ni dañuy dem ci njabarkat yi di leen laaj ëllëg luy xew yonent bi ne ko fala tatihim yow moom bul dem boo déggee question bi loo cay déggee ci jamonoy jaahiliya xërëm yi amoon na ñuy taxaw di wax li ñëwagut léeg-léeg nga ñëw ne ko dama war a tukki mu ne la baaxul toogal dama war a dem nangam mu ne la sarxel nangam pour yoon bi nangam nee na ñey dem di laaj yonent bi ne ko falaa taatihim yow moom bu ko def xam nga lu muy tekki mooy yow ak ku mel ni yow am ngëm yàlla bu leen ko def ñëw na ci sahih muslim ne man ata arrafan fa saalahu an cheyin lam tuqbal lahu salaatun arbaina layla képp ku dem ci gisaanekat seetkat góor walla jigéen ne kooku kenn du ko nangul julli ñeen fukki fan mbokk jullit na moytu gaaflu walla gaaf gaaflu yonent bi ne laysa minna man tatayyara aw tutuyira la aw takahana aw tukuhina la aw sahara bul njabar bul njabarlu aw suhira la wa man ata kaahinan fa saddaqahu bi yaqul faqad kafara ma unzila ala muhammad ñi ma gën a tiital nag mooy jeune reporter yi maa ngi leen di bàyyiloo xel yéen jeune reporter yi nekk ci site yi monétiser seeni sit di ut ay vues mën ngeen koo am te du ngeen koo am ci lu xaram jamono boo dékkee sa micro benn Umar Sall te nga xam ne Umar mii njabarkat la ay jinne lay jëfandikoo gisaanekat la day wax lu amagul yow mi déplacé wu yore sa micro dénk ko ko jay ko nag ndax ñoom noonu la ñu def diw waxoon nga si keroog affaire bi am de xam naa ni gars yi lu ko defee commencé laa taal yow mi ko def ñeen fukki fan yow mi ko dékk micro yonent bi nee na ñeen fukki fan boo jullee yàlla nanguwul ana ban liggéey moo jar ci kaw suuf bu ko nekkee journaliste ba télé bi sant la ko nga def ko wala radio bi sant la ko nga def ko soko defé rek taxaw nga ci perte ñen fukki fan digënté bi bo ci dé no def nañu moytu lu mel non yonent bi néna képp ku dikkal kat wala kat wala kat mu wax nga dëggal ko moy nga ni ko defon nga sàngam mu am waxul nga nangam mu am yonent bi ne faqat afara bima unzila ala muhammad koku dé weddi na la ñu wàcc ci muhammad te li ñu wàcc ci muhammad mooy alquran kon mbokk jullit ñi shabaab yi jeunesse bi ndaw ñi maa ngi leen di delloo si di leen wax ni njabar am na lu wér la am na waaye ndax lépp lu am rek dagan na loolu mooy question bi amuk njabar wér na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njabar nañ ko njabar nañ ko wallahi ñu ngi ko njabar ab yahud moo ko njabar ku ñuy wax labid ñu sànni njabar mi ci teen bu ñu rootatul bokk na ci sabab yooyu moo wàcce qul audu bi rabbil falaq qul audu bi rabbin naas ndax bi yonent bi feebaree bi ko njabar mi jàppee ñaari malaaka dañoo ñëw kenn taxaw ci bopp yonent bi keneen ki ci tànk càmmoñam xaw ma ci tanki ki taxaw ci tanki yi laaj ni yonent bi tedde ya aisha neena yonent bi doon jekki di ñak neena benn malaaka mi laaj ki lan moko dal benen malaat bi ne ko innahu maqbub dañu ko njabar te njabar mi ñu ko sanni ci benn teen ki ko njabar moy labit bi aaya yi wàccee ñu ne fukki takk-takk ak benn la waa ji defoon jàngal qul a'udhu rabbi falaq qul a'udhu rabbi naa yépp fukki aaya la ak benn am na riwaaye boo xam ne bi ñu laajee yonante bi sababu nuzuli aaya yi dafa ne qiila li qul fa qultu dañ ma ne waxat rek ma wax kon am na waaye ndax baax na déedéet yahud ñoo ko doon jëfandikoo ba di ko jiiñ yonent yàlla suleymaan ne danoon njabar yàlla ne leen déedéet wa maa kafara suleymaan walakin ash-shayaatiina kafaru yuallimuuna annaasa sixar yonent yàlla suleymaan xalaatul weddi yàlla ndax njabar kufru la ay wa maa saxara suleymaan walakin ash-shayaatiina saxaru yàlla mënoon naa wax loolu bu ko defee danaan suleymaan njabarul jinne yi ñoo njabar yàlla neen déedéet suleymaan jëful jëfi kéefër wa maa kafara suleymaan walakinna shayatina kafaru borom bi dañu leeral ci biir aaya yooyu ne ñoom ñiy njabar mënuñoo lor kenn lu dul tombeeg ndégalul yàlla wa maa hum bi daarrina min ahadin illa bi idnillah kon mbokk yow jeune bi ñàkk liggéey bu mu tax mukk nga ñëw ci nit ki ne ko seetal ma man dama jaaxle dama tiit lu ma dugg mu yàqu déedéet yoru ko déedéet dellul ñaan saa bu say mbir jafee rek yëgal ni yàlla mi ngi lay woo ci boppam yéen jeunesse bi maa ngi leen di jox xikma bi saa bu say mbir jafee yëgal ni yàlla mi ngi lay woo ci boppam yàlla mi ngi laan taala yabna aadam ñëwal ñëwal ñaanal ñaanal ma may la mbokk bul découragé xéewal wërsëg ci loxol yàlla la nekk nekkul ci loxob sëriñ bi nekkul ci loxob njabarkat bi ndax moom mënul tus mënul dara neel yaa allah asmaul xusna mi ngi fi yàlla nee na inna yonent bi nee na inna lillahi asmaul xusna wa fi riwaya tis'un isma yalla amna juroom ñeen fukki tur ak juroom ñeent ku ko ci ñaan mu may la demal nga jàng ku ngay ñaan bokk ñaanal da nga am ay problème wasjud waqtarib jullil soo sujjeetee jege nga yalla ñaanal saa boo ñaanee yàlla yëg ni gën nga koo jege nangu nga amug yalla ne mu teggil la mbokk bu mu metti ba nga bu mu metti ba nga dellu ginnaaw jegal rek wasjud waqtarib loo gën a bëgg a jege yàlla gën koo jullee loo gën a sujjóot jege yàlla da am ay jafe-jafe da am ay jafe-jafe ay ñaan a ngi nii yolant bi nee na ku am jafe-jafe boo koy ñaan yàlla teggil la allahuma inni auduk min alhammi walhazan wa audu bika min alajazi walkasal وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يونت بي نينا كوكاي ديف يالا يومبال ساي مبير داغا تيت داغا جاخلé normal na parce que say morom am nañu amo say morom té nañu téwo am vérifier yow li nga am ndax am am and nak lu yalla gëreum ya bëgg jégué yalla nattu yàlla nattuwu wala pour sonal la lumu la tek tek nako ñu la raw te mënuñ ci dara tuddal yàlla la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin del jege sa borom del ñaan ismullahi al-a'zam allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta al-mannan badi'u as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram yaa xay yaa nga ñaan yàlla say fitna ñaan ko say jafe-jafe insha allah yàlla dana la ko teggil kon jeunesse bi moytu leen dem ci njabar koñ bu ñu ñëw bugguñ fa jàmm gisaane kat moytu leen ko même seetaan ci internet bi gëm li mu wax dafay dugg ci loolu kon yàlla nañu yàlla musal ci njabar ak li ko nuru ñoo ngi jëm ci ay yooni fitna tee leen njaboot gi bu baax jigéen ñi ci kër yi sàmm leen xale yi ndax kat jamono bii xale bi réer na sàcc nañu ko rendi nañu ko bënn nañu bëtam nangam nangam nangam nangam nangam kenn xamul lan la yàlla nañ ci yàlla musal musal ci suñuy doom musal ci suñuy njaboot say doom bu ñuy jàngi topp leen bu ñuy wàcc topp leen bu ñu àndee ku xaw a mage am 10 ans nee ko bu ngeen di ñibbi ku la yónni bañal booy kaay ma yónni la booy duggal ma ci bitig bi bañal magum jëmm du taxaw ci ab koñ naan la kaay ma yónni la ci bitig ba jubut su juboon demal boppam bul ànd ak la kaay ma yónni la bàyyi fi xale bi nga bàyyi ko fi déedéet dee leen waxtaan ak njaboot gi ak njaboot dañuy waxtaan ak ñoom Pape Ibrahim boo génnee koo xamul bu mu la yónni nga dem <coughs> ku la woo bul ñëw ku la may bul jël ndax xale la xamul dara mën nañ jékki nax ko ci loo xamante ni ay jooy ngay mujjee ay jooy ngay mujjee yàlla nañu yàlla musal allahuma ahdina fi man hadayt وعافنا wa barik lana fi ma من wa qina bi rahmatika sharra ma برحمتك fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man من wa la يعز man عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قبل قوموا إلى الصلاة